yëkkat nañu seen kàddu dut baaraam si lu ñu jàpp ni moo yàq seen parti bii di APR si Touba ñoom nag dañoo cité ay leader toll si ñeent ba juróom jàpp nañu kat ñoom ñoo waral jafe-jafe yi benn bokk yaakaar am et en particulier APR waa RMT ñoo wax lu nu waa RMT di républicain marginalisé de Touba ñoo wax lu ne mel. ñii fi nekk te ma na mën naa mën naa ci mën naa mën naa ci lim ndax dañoo àgg foo xamante ni mbir mi dafa toll foo xamante ni dañoo war di jox xam baaram président gis nga parti bi. Cheikh Abdoulaye Mbacke Gueye Dafane moo yàq parti bi Abdoulaye Seck Sadaga moo yàq parti bi ah ah ah Matar Diop mooy yàq parti bi loolu mooy dëgg mhm, sëñ Moudou Baara Doli moom tamit ci yàq parti bi ci la bokk dañu waxante dëgg parce que man mënu maa comprendre ay nit ñu ne ànd nañu mhm. buñ demee Dakar ñoom ñooy bokk benn table bu ñuy waxtaanee. te bu ñëwee Touba kenn ku nekk di say si xef say morom kenn ku nekk di wang xëcc ay gone di taf sa bopp di di jël yeneen gone di dóor ci yeneen ñi mais loolu moo yàq parti bi dellu suñu firnde bi mooy parti bi ay partition la si biir Touba rawat na ndaw yi mën mënuñu sax nag doon benn ndax jàpp na nu ni kat am na trois cogères yu différentes te loolee li ko sooke mooy seen mag ñi li fi nekk bu ñu ne tey lu mat ñeenti cogère mi mi ngi ci Touba loolu c'est pas normal te lan ko waral mooy ñoom kilifa yooyu kenn ku ci nekk tey yaa ngi woo say gone di leen di leen wanga wangal di jël di dóor say morom kenn ku ci nekk bëgg bëgg a créer sa sa concert kër loolu daa mën a nekk parti benn parti la benn concert moo fi am Moussa Sow koy coordonné ne nag sax li gën a firndeel ni seen parti bi am na problème mooy zone yi nga xamante ni sax nag ñoo ngi koy gën a yokkaat toll woon ci onze mu demaat ci vingt-deux jàpp na ni kat lu nu mel dañ ko liggéey ci suuf kenn yëgul te sax nag dañ ko waxoon diisu boole si ñëpp ñu si war a bokk te gis nañu ni kat loolee lay indi ëllëg. parti bi dañ ko organisé ci ay zone zone yi defe naa la la doon fan yi passé maa ngi dégg ñoom ñu tëj ci ay biir néeg ñoom juróomi nit ne dañuy yokk zone yi te impliqué wuñ ci kenn parti bi nag su amee problème loolu moo ko andi c'est parce que nit loo xam ne mbooloo ko bokk dañoo war a boole ñëpp euh, euh, impliqué ci ñëpp kenn ku nekk joxe sa xalaat ñu waxtaanee parti bi loolu mooy defar parti bi mais nag su fekkente ne ni juróomi nit ñooy tëju di di def loo xamante ni dafay concerné mbooloo mi jàpp naa la ñuy def dara du ca baax. te loolu ñun duñ ko nangu. RMT bàyyiwul de saa su nekk mi ngi si liggéey bi am nañu si loolu constance depuis des mois ñoom nag li ñu bëgg jafe-jafe yi ñuy dund si biir APR ñu mën see indi solution ndax nag xamuñu kenn ku dul seen jiitu parti bi di président Macky Sall.